bisimilah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah eh, mbokki jullit ñëpp ñu ngi leen di ziara di ñëwaat ci ay leeral ci mbokk moomu nga xam ne eh, maa ngi koy ndokkeel loolu parce que eh, waxtaan dafa baax lool macha allah wax nga ne laa tajidu qawman dama ne aaya ji yonent bi sallallahu alayhi wa du ñoom ñoo la aaya ji tax jóg ndax ñoom nga aaya ji di wax xam naa dangaa déggul bu baax dama ne la aaya ji wàccut ci ñoom dematal nga delluwaat ci sootul mu jaadala 99 da nga fekk bàyyi na la nazalat haazil aaya nazalat fi jamaatin min saxaaba kon wàccut ci yonent bi waaye ci mbooloo ci saaba yi la nga liir ko comme liiraloon naa ko jaruma ci sori Ah, waaye nag yeneentu bi ak Cheikh ak baay ci biir ci rasul bi fa lañ taxaw rasul bi wa rasulahu yonent bi rasul la Cheikh Tidiane rasul la Baye rasul la foofu lañ taxaw ñoom moo tax boo seetee ñoom uuteewuñu ak seen yi ndax seen baay jullit lañ woon ñu gëmoon yàlla lañ ñoom ñu gëm yàlla lañ amaasa sëriñ nag moom comme dafa uuteeg baayam moom dafay bokk ci mbooloo mi nga xamee ne ci ñoom la aay bi wàcc parce que baayam gëmutoon baay yaayam gëmutoon baay te aay bi euh, dafay wax ci ki wuuteeg baayam ak yaayam ki wuuteeg baayam ak yaayam lay wax ak ki wuuteeg ay mbokkam ak ki wuuteeg ay doomam ak wuuteeg famiyam léegi nag moom comme sëriñ bi baayam toppoon topp ko sëriñ bi yaayam toppoon topp ko kon moom laa tajidu xawman doo fekk aw nit yuminuuna billahi ñuy gëm yàlla ñu gëm yàlla wal yawmil axir ak bés pénc yu waaduuna ñuy dëggal man xaadalaa koo xam ne dafa kontur yàlla dafa weddi yàlla wa rasulahu ak yonentoom ku weddi yàlla ak yonentoom rasul ci jamono ay waajuram bi rasul bi nekk bi mu bokk ak jamono mooy Cheikh Ibrahim dégg nga walaw kaanu léegi nag su ko defee bu fekkee ne ay baayam moom rasul bi ñu bokk ak jamono ñu bàyyi gëmuñ ko moom mu ñëw wan gannaaw dégg la baayam yaayam gëmoon gëm e, yàlla ak rasulam te mooy Cheikh Ibrahim kon su boobaa moom ci aaya ji mu ngi bokk ci xawman fa la bokk kon na nga ko bàyyi xel alhamdulilah beneen mbir bi ci topp wax nga ci yuuli julaay la moom nga doon wax ma ñëw indi la tuuri julaay la yuxrijul xayya ma ñëw indi la tuxrijul wa tuxrijul comme ni nga ko waxee waaye yow yuuli la moom nga indi man ma indil la tuuri julaay la léegi boo demee ci sootu luqumaan page 7 ca tafsiru Cheikh Ibrahima ci jusu xaamis da nga ko fekk yuliju layla fi naar wa yuliju naara fi layla waaye nag soo gisee ma indil la bi ci Ali Imran la nga doon firi yow mooy foofu bàyyi daf ko fa yaatal mu indi ko pour jaamu yàlla yi man ko liir rawatina taalibi Cheikh Ibrahima yi foofu dana wax ku gëm yàlla dana jur ku gëmul yàlla féeféer jur ku gëm yàlla dana jur ku gëmul yàlla ku gëmul yàlla jur ku gëm yàlla dégg nga ma indil la ko foofu pour ki nga xam ne moom mooy euh, liir su demee ci paas dana ko fekk waaye yolu ji lay la moom ñëw na ci sootu luqumaan mën nga fa dem waaye détail bi moom boo ñëwee ci sootu Al foofu la gën a feeñ ama beneen bi nag مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فوفو من ما من لا نيه نعم ما defee ko noonu waxuma saar bi ba pare au lieu que ma wax awliya ma loolu man la neex ma defee ko noonu ànd ak nag euh, man damay juum man duma xalifee la mu leer waaye man la neex ma def ko noonu pour xool yow noo koy attee ndax damaa gis sa waaji ji juum ci ay wax yu bari ah kon léegi nag comme atte nga ne man damaa war a bàyyi oote léegi nag xanaa su ma la indilee sa waa ji nag ay juum juumam ah, xanaa da ko wax nag mu bàyyi oote léegi coow lu jeex ah, masalan ma jox la misaal sa waa ji def na jinne nit su nelawee euh, nelaw bi mu nelaw moom mooy jinne bu deeyee loolu mooy malaaka nit bu yeewoo loolu mooy nit mu mel ni nit ki nelawam mooy jinne yeewoom mooy nit dégg nga deeyam mooy malaaka mu mel ni kon yeewu bi nga xam ne mooy melokaanu Euh, pour mu jëflante nit ñi mooy ca lay nekkee nit bu nelawee nga xam ne day gént dem Amérique dem fu ne mooy jinne dégg nga bu dee mooy malaaka loolu sa waa ji moo ko wax léegi léegi layal ko loolu ci alquran alquran wax na wa maa xalaatul jinne wal insa alquran moom dafa wax nit ak jinne du benn alquran wax na ne ci malaaka yi duñ moy yàlla lim leen digal lu leen yàlla digal lañuy ñuy def malaaka yi ay jaam lañu jaamu yàlla lañ boo demee ci ma xaaltu jinne wal insi illa liya'budun boobu da ko fekk bàyyi ne euh, euh, différence malaaka yi ak nit ki ak jinne boo demee sootul jinne dégg nga boo demee même ci faydu bi sax euh, bàyyi amoon ay taalibe nifaaq ak naayir dégg nga même ci faydu bi ba tey bi faydika faadal ins wal jinn léegi nag layal ko loolu moom yàq erreur yooyu mu def xàmmewul malaaka ak nit xàmmewul malaaka ak jinne xàmmewul nit ak jinne xàmmewu leen réew yooyu xam naa danga ci war a dikk pour leeral ko waaw beneen bi ci tagu jàngal naa ñaari mbir ci waxam te moom laay laaj yi moom moom laa koy laaj yow sax laajuma la moom laa koy laaj te man li ma gën a neex ci yow mooy yow moom booy tontu da nga jéemande aaya jéemande aaya dis waaye moom dafa mel ni moom xam naa su la amutoon de euh, moom xam naa ne bu la amutoon dana métti ci moom lool ndax moom moom li muy wax yëpp amul benn wax bu bu muy wax teg ci dalil moom daal ay wax la rek li yi di wax daal moom dugg na ci mbooloo moomu ñuy wax naan lawla dalilu la qaala man shaa ma shaa bu taxutoon a dalil moom ku nekk wax lu la neex moom daal te it man maa ngi soog a gëm euh, ñàkk xam nga moom day wax umaatu bidaay day wax umaatu nubu wilaay xilaaf day umaatu kawnu waaye maa ngi soog a gëm di tax mu ne kenn mënta wax ne dox na ko foofu ndax ñi ko dox danañ jéemandi ay aaya di jéemandi ay beyti di dëggal seeni wax waaye ñàkk dox gi mu ko dox tamit jural na ko moom day wax rek te du indi benn dalil kon feebaru dugg ci mbooloo war a joxe sa xol te joxoo sa xol di tricher ngir bëgg a feeñ tamit feeñ na foofu. bi tamit maandu gi muy wax teg maandu tamit jaaxal na ma ndax yow nag ngay waxee umaatu bi daayee te yow indiwoo ko te doo kooku doo wax ne kooku sa sëriñ la. nga wax umaatu nga ba wilaaya xilaaf indiwoo ko te doo nangu wax ne mooy sa sëriñ ngay jamono bi amul sëriñ ngay wax umaatu kaw nu te indiwoo ko te mënoo wax ne ko mooy sëriñ waaw loolu est ce que teg ma mandu la ci kanam parce que yaa ngi waxtaalee baay nga te bàyyi fànnaaw bi la fi indi léegi nag ki indi umaatu bidaaya dégg nga umaatu bidaaya gën a dégg nga yaatu fànnaaw bi ki indi umaatu nu boo wilaaya xilaaf ki indi kaw nu ñooñu ñëpp nga tëb leen ba bëgg dégg nga ki indi fanaaw nekk sa sëriñ waaye ñi ki indi dégg nga umaatu bidaaya ki indi umaatu nu bu wilaay xiraaf ki indi kaw nu ñoom duñu nekk sa sëriñ est ce que loolu màndu la loolu yow mi nga xam ne yaay oote yow laa ko laaj yow laa ko laaj est ce que loolu màndu la ci boppam man damaa foog na tamit euh, nekk ngoo tijaan yetu yow mii di ote loolu laa foog te loolu moo am te jàngat boobu laa am ci sa doxalin ak ci sa waxin ndax ki nga wax ne moo la jox tarbiya nee nga cheikhul xayri joxu la tarbiya euh, coono alpha joxu la tarbiya sax nga jaay joxu la tarbiya waaw d'accord léegi yow ki nga wax ne moo la jar tarbiya mu ulaa rek la mag ak yow de kon yow da bëgg wax ne amoo fatu ago ci yàlla àggoo ci yonent bi àggoo Cheikh Tidiane àggoo Cheikh ah, bàyyi nee na képp koo xam ne ci may yàlla rek nga yem kooku ci xut bi mu bokk sax nekk goo sax Tidiane te yow ki la tarbiya kooku dégg nga yow nag ngay nekkee xut bu zamaan di dem ci koo xam ne xadama ula rek la la mën a jox koo xam ne moom tijaani toom soobu na pour nekk tijaan waaye tijaani toom matatu matagut ndax Cheikh Tijaan moo wax ne nihaayatul aqtaab bidaayatu asaabi xutbu fi ñu yem fala sama taalibe yi dalee bàyyi ne alhamdulilah nihaayatu aqtaab bidaayatu asaabi xadmi tijaani maa ngi sant yàlla fi xutbu yem fala taalibe Cheikh Tijaan dee ñu ne ko fan la xutbu yem mu ne xadamu ula ci ndëggu mu njëkk maa yàlla yow léegi bàyyi wax ne euh, Medina. fiihaa rijaalun zawqum kal atimi am na ay góor yoo xam ne seen mosko ko ibnu arabi atimi la seen zawqu te léegi moom sëriñ bi bi sëriñ bi la tarbee yow zawqoom ci maa yàlla la yem te ibnu arabi atimi du tijaan zawqoom ci maa yàlla la yem yow yow nga nekk xutbu amul koy jëlee eh, ci moom tarixa ak tarbiya koo xam ne matagut tijaanitu ba pare mu jox la tarixa dégg nga te bàyyi nee na képp ku jël tarixa te sooboo dégg maanaa yow doo tijaan boo demee siru akbar wax na ko beneen biit ku sóobu te amoo jasbu te jasbu ci bàyyi mooy ko am jasbu ci ñeenti àqaay xépp te sëriñ boobu amul jasbu ñeenti àqaay xépp yow amoo jasbu ñeenti àqaay xépp bàyyi mu ne bokkoo ci moom yow kay dañuy laaj léegi ndax taalay bàyyi nga dañuy laaj ndax tijaan nga ndax dañuy laaj ndax am nga fatu ndax yow ci ndëggu njàkk nga yem mooy maa yàlla te wax nga ne moom ba mu la yeggalee foofu dégg nga dalaa waxal yenentu rek ne la dama seet turu kon xamee nañ ci ne yow amoo fatu ndax cheikh tarbiwu la dégg nga tarbiyaat euh, euh, conooma tarbiwu la cono alfa tarbiwu la sanga yaay la léegi ñooñ tarbiwu la kon looyu tegtaleen mooy yow ba léegi amoo fatu léegi nag maa ngi soog a xam nag ni ngay waxee ci wàllu xam yàlla maa ngi soog a xam di tax waxal nga ko sa bopp mooy amoo fatu dégg nga ki la tarbiya du tijaan matagu ko dégg nga xadmu ulaa la yem ci xutbu yi la yem dégg nga yow tamit nga am xadmu ulaa fi xutbu yi fa nga yem ah d' accord maa ngi soog a xam loolu kon d' accord moo waral ngay def jinne nit euh, nit bu nelawee mooy jinne xamee nañ ci ne yow matoo xalifa yàlla ndax yonent bi daan na gis jinne yi xulooye ilay annahu sama nafaru mu ne jinni jàng ko boo demee nga jàng ko xam naa du ñàkk sa waa ji dana la ko mën a liiral man la si jàngal yu bari incha allah te nga indil ma nag dalil ci ne jinne nit bu nelawee mooy jinne nga di dalil ak dégg nga malaaka nit bu deeyee mooy malaaka kon malaaka daal niwu la daal kon daal ba maa ngi lay wax na nag boo demee ci euh, uma xaltu jinne wal insa bi ko bàyyi di firi daf ne jinne am na éeféer malaaka am na éeféer waaye nit amul euh, waaye malaaka jinne am na éeféer nit am na éeféer waaye malaaka amul éeféer te léegi nit bu fekkee ne buy nelawee mooy jinne bu yeewoo mooy nit bu dee dégg nga mooy malaaka kon éféer bu dee malaaka la kon euh, malaaka bu nekk éféer am na kon su ko defee euh, loolu maa ngi la ci ubbil buntu teg ko sa kanam nag muy nekk suwaal yu ma teg sa kanam yow mi nga xam ne yaa oote laaj la ci defi dégg nga su ko defee euh, beneen bi li ma jaaxal mooy yow da ngay sabote jàng sabote nangam sabote nangam sabote nangam te yow xam naa ne bu la sa waa ji sa waa ji sa waa ji bu la bu la dimbalatoon danga nga sonn de te ngaa bàyyi jàng ndax moom moo ngi lay dimbale dégg nga soo soo soo suñ la laajee loo xamul mënoon ne la mooy jéem a dugalante dugalante ba indi tontu te te nga respecté jàng jàng baax na de te nga ko respecte waaye kon su ko defee loolu lu ma samp sa kanam la beneen bi maa ngi sampaat beneen euh, laaj sa kanam Euh, gannaaw bi nga xamee ne nag euh, xam nañ ne fatu bi moom des na xam nañ ne maarifa bi moom ñëwagul ndax ibrahima ju dafa ne ba leen jikkoy pro day maa bu joppi rik ma coob dee leen gërëm mbër mi leen woon Seydi Baraam léegi maa ngi samp laaj da nga wax ne da ngaa samp euh, alif ba yaa abajada da ngaa samp alif lan mooy umaatam dégg nga xaqaay xam ba salawaat léegi man dama am laaj mu la sampal boo laaj yi boo ko tontoo rek ma xam ne yaay waay yi dégg nga léegi li ma lay laaj mooy séeréel bi nga doon abajada séeréel nga wax ma lan la soo paree nga wax ma abajada soose soo paree nga wax ma abajada bambara ba mboolem làkk yi ci àdduna bi bu mooy français ak arabe ak anglais yooyu xam naa ko waaye espagnol abajadam te da yëpp yooyu yëpp boo ma ko waxee ba pare dégg nga na nga génn publiquement comme da nga ne da ngay wax xam-xam baatin publiquement nga wax ma abajada séeréel soose màndinke joolaa te ku ci nekk boo paree nga tàmbaleen ma ku si nekk euh, premier lettre am xaqay xam ba sawaat soo paree loolu maa ko samp ci maa ko samp beneen bi tamit maa ngi dégg ngay wax ne fu yàlla tudd bàyyi ci alxuraan euh, fu yéen tudd bàyyi ci addis maa ngi dégg tam ngay wax ne faydu Cheikh Tidiane ko njëkk wax da ngaa fay faydu addis wax na ko boo defee tëjjit ci man daara ko xamal dégg nga fu yàlla tudd bàyyi ci alxuraan fu yàlla tudd euh, Cheikh Tidiane ci alxuraan bàyyi yàlla tudd na ci alxuraan Cheikh yàlla tudd nag ci alxuraan te loolu li nga doxut séeru bi nga ñëwee ci Cheikh li nga doxu séeru bi nga ñëwee ci Thierno Omar Thierno ba ci sang bi loolu sax xamoo ko waaye loolu moom boo defee tëj bi ci man incha allah dana la ci dimbale. beneen bi Kër musa boobu nga dëkk ak 50 yooyu maa ngi laaj ummaatu Kër musa ak xam kër gu nekk yi ak xaayixam ba salawaatam dégg nga Thiès euh, cinquante ba Sénégal région par région bu ci nekk ma nga laaj umaatam te loolu samp naa la defi yii ma la laaj doo ci tontu benn abajada séeréel ba mu jeex lettre par lettre nan lañ koy bindee ba mu jeex ba xeeti làkk ci àdduna bi jeex aw sa jarma olumu hausawa ahlu jarma kazaka dagumba alxawi fi amma wa jaani yoroba kazaka muusi wangara wa jaani man fuusi ba mu jeex kooku maa ngi la ci xaar samp naa la ci defi léegi nag soo ko tontoo yëpp nag ku nekk nga indil ma abajadam ci lakk yëpp tontu ma bu ci nekk uh, uh, umaatam araf yëpp lettre yëpp su ko defee ne ma soog a ñëw nag uh, wax a yow jàkkaan pour wane na yow xamoo yàlla amoo fatu amaa nag li nga wax ci Abdoulaye Wade loolu sa analyse bu suufee rek la duñ ci sori xam nga xel moom ak dalil duñ duñ leen tollale xel ak dalil naq la ak àq la dégg nga bàyyi nas radiallahu anhu boo demee ci kaasu albas euh, indi na fa bayt yi nga xamee ne woy nañ ko ko mu nangu ko tadala min abdayni allah darruhu wa darruhuma lillahi nahlan wa manhala fa fi faydati irfani shaabahu axira ci wa bëgg xam yàlla ci wàllu xam yàlla ki mujj ka nga xam ne moo mujj a ñëw ci moom muy Abdullahi Wulaaj moo ko ci yar wa naafiun min fiihi shaabahu awala xam-xam buy jëriñ muy xam-xamu shariatu bi ki ko ko jàngal mooy baayam mos génn kër baayam taraw ci lislaam benn sëriñ mosu mënu feex ne dem na daaraam kon Abdullahi daaj moo doon sëriñam ci wàllu maarifa waaye ci wàllu sariya baayam la loolu mu ngi ci kaasu albas boo demee ci jawaayu rasaayil ci ziyaada bi lettre trente trente trente deuxième danga dégg bàyyi di bind lettre euh, ki nga xam ne mooy am Omar ibnu Malik bismillahi rahmaani xaqan wa siddiqi euh, sidqan ala alwasil walaalimu laamil omar ibnu malik maa maxnaa qawlu cheykhi wa qutwati wa ustaazi wa mawlaaye abdoulaye ibnu xaaj al lan mooy maanaa sama waxu sëriñ bi ki nga xam ne moo ma doon omat ki nga xamee ne mooy sama ustaas moo may omat te mooy sama ustaas mooy sama borom mooy ki méngoo sama mbir ci wàllu xam yàlla Abdoulaye Wald ibnu Haaj al-Alawi lan mooy maanaam ca ca lay waxee sifataani xadimataani xadisataani masaruma dunia wa oxra ma baynuma ak yeneen mbir yoo xam ne euh, daan na ko ko laaj parce que daan na waxtaan ak moom ci wàllu xam yàlla loolu benn la nga dem ci rix la gànnaar ma yebalaal la fa boo demee foofu bi mu bàyyi demee ziyaara ji xabroom nga gis li wax ci moom wa qudwati abdul ilaahi alfardu man laa lahu fii sa zamaani niddu ki nga xamee ne moom may omat mooy abdul ilaahi mooy abdoulahi wul daaj al faddu ki nga xamee ne faddu la man laa lahu fii sa zamaani niddu ki nga xamee ne jamono bii amul ku mel ni moom amul maas amul ku mel ni moom amul kuñ koy nirooleel final mi ci xam-xam wala refaane xam yàlla foofu moom al mufradu kuñ wéetal la misl bal mislahu bàyyi nal waraalaay yu jodu ku mel ni moom ci mbindee fi doo gis mukk ndax yàlla jagleel ko mu nekk seriñu Cheikh Ibrahim yaa ko ci xam yàlla te loolu dégg nga ku mel ni moom ku ko yàlla jagleel ñu dajeeg ci benn zama ci dajeeg ci seen ñaari suure yi dajee muy dolli bàyyi ci wàllu xam yàlla amul léegi nag ci bunt bii moom fii laa si gëj wax ak yow ci bunt bii duma ci waxaat ak yow léegi nag laajoon naa la euh, fan la Baye wax ne Abdoulaye Baye yenantu bi ak Abu Taalib ñoom ñëpp éeféer lañ loolu laajoon naa la ko waaye son xam naa ne fàttewoo ko waaye da ko amut da nga koo wax rek pour say waa xadara dégg nga loo teg seen loxo waaye maa ngi la si xaaraat di la ko laajaat beneen yoon. ama li nga wax na ci Abdoulaye Baye yoon ci ban diina la nekkoon kooku moom tontu naa ci duma si demaat ndax day tardel débat bi beneen bi mooy euh, Baye. wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa akramihim nafsan wa sihran wa nisbatan wa ilman wa aadaban wa atqaa wa aqchaw yonent bi moo gën a tedd nit ñi nafsu muy boppam moo gën a tedd nit ñi goro moo gën a tedd nit ñi askan ak waayel man ak xam-xam wa adaaban ak ay teggeen wa atqaa moo gën a ragal yàlla wa aqcha moo gën a ragal léegi nag ma tegal la beneen laaj yonent bi moom wax na askanam liimal na ko boppam ba ci àddinaan alxuraan dëggal ko ne ko mosoo jaar ci kuy bokk ku gëmul yàlla loolu duñ ci ñëwaat léegi bàyyi moom bi mu ñëwee Seexu Tijaan bi mu ñëwee wax nañu koy baayam wax nañu kuy yaayam wax nañu kuy maamam ba ci Aliyu kon wax na askanam léegi bàyyi bi mu ñëwee wax nañu askanam it ba ci am ba ci ba ci ay maamam léegi nag maa ngi lay laaj sa waa moom du wax ci askanam man maa ngi dégg muy wax ci jaar jaaram waaye waxul ci baayam waxul ci yaayam de dana duñu ay taale bàyyi rek xam naa loolu xam na ne moom palmarès bu mu foofu la yàqoo dañuy wax ay maamam wala nga laaj ko mu wax la ay maamam ñooy ñaan ak man taxawaay lañu am ci diine xam naa du am njëriñ ndax bu ci waxee tamit daanaka comme duñu ay taale bàyyi rek daanaka moom euh, dañuy génn palmarès bi day yàqu beneen bi na ko dimbale parce que jaar-jaar bi moom euh, dama ko yërëm sax xam nga man sax man wax naa aaya war a wax awliyaa war a ne ne awsaanan waaye moom li ma gën a li ma ko gën a ñëwantee sax moom mooy dem na nu baax yi nee na dem na maatamu na dem na ndax jàngi moom daal daarim jaar yëpp kon dafa bugg a wax ne moom mooy koo xam ne boo ñëwee da ngay daw jàng wala boo jàngee leçon yi doo mokkal parce que ci waxtaanam gisuñ ci benn màndarga bu wane ne kii fer na ci wàllu daara xam-xamu daara dégg nga loolu daal gisuñ ko ci kon daal ba et puis jaar-jaaram yi ni mu koy nettalee dafa tey quatre-vingt-quinze nangam quinze ans tourisant loolu xam naa ba ngeen ko ci mënee dimbale ngeen dimbale ko ci léegi léeg sax damay dégg lu jaar jaar yi ma ne waaw kii est-ce que est-ce que laalul tur boo xam ne moo yëngal bopp bi wala lu demee ni moom dama ragal ne loolu daf ci am euh, dama ragal ne loolu daf ci am kon daal alaa kulli haalin euh, dee ku dimbale bu baax a baax alaa kulli haalin ñu ngi sant ñu ngi gërëm euh, danañ ñëwaat ci yeneen laaj yi ma leen samp defi nag su fekkee ne moom dëggal na boppam dana day defal musaakar ci YouTube bi. du nëbbu xam-xam baatin sampal naa ko ay laaj yoo xam ne dégg nga du ko tontu mu ko mënu ci dara nag maatu abajada séeréer maatu abajada soose extra ba mu jeex yaakaar naa yooyu yëpp yónnee naa ko kooku lu ci wax. waaw damaa yaakaar ne ambila bi doxul bi ak bitig bu daanu bi xam nga xale fa yàlla moom buy def ambila doxul buy def bitig daanu ah yonent bi bi de sallallahu alayhi wa sallam léegi nag xam naa mu ne xaaral ma jéem nekk sëriñ rek. kaalawu rek dégg nga jéem a nekk sëriñ parce que boobu moom moo gën a yomb yow sax yaa ngi jàngale daara moom waaye moom de xam naa ne ah lañ leen dimbale en tout cas sampal naa ko xeeti ummaat yoo xam ne moom lu ci laal dara dara dara te te yooyu yenn rek laaj la rek la am na yeneen laaj léegi na tontu ci ummaat yi ak jinne yi ma ko laaj ak malaaka yi bu ñu paree ma ñëw ci yeneen waaw danaa ko wax na ko moom. Euh, amagul fatu te nekk gu tijaan daal incha allah waxuma laa caaree bàyyi Happiness TV, la joie du